mbokki jullit yi mbokki taalibe yi niñ leen ko diggee woon noonu lañ leen ko defalee doxantu nañ na yomb fas yéene ñëw dugg fi nga xam ne mooy ci biir teen bii nga xam ne moom la soxna jaaratullaahi bu Bousso daan rootee jamono ji nag ñi ci bunt bi gis ngeen mbooloo mi rang gi daanaka foo ko ëpp ci guddaay bi foo ko àpp ci guddaay bi rek weesu na ko lépp rek ngir bëgg a am li nga xam ne mooy ndoxum barkeelu ci teen bii nga xam ne moom la soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso daan rootee danañ dugg ci biir amal fi reportage filmer leen teen bi ak ni nga xam ne it noonu lañ fiy génnee ndox mi ba taalibe yi di ci man di jariñu di barkeelu suñ noppee nag danañ introsé ñenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñi ngi fi incha allahu taala ñu wax ñu doxalinu teen bi ak liggéey bi naka la fas yéenee doxe su ko defee kon rek incha allahu taala tubaa Argentine TV dana doxantu dugg fii nga xam ne moom moo di ci biir teen bi ñu fas yéene leen a wax naka la liggéey bi di doxe kon sama cameraman nga topp ma ñu ànd ci biir lépp rek ci màggalu Porokhane incha allah. jërëjëf kon mbokk yi dugg nañ ci biir teen bi wan nañ leen li nga xam ne noonu la ñuy génnee ndox mi nga xam ne ndoxum barkeelu la bu fas yéenee jëm ci ñi nga xam ne ñooy euh, taalibe yi ñuy ñëw di ko sàkku si fii waaye ñi ngi taxaw ak kenn ci jëwrin yi nga xam ne ñoom Euh, ñi doxal liggéey bi lañ waaye kii ñu dénk ko li nga xam ne mooy wàllum communication bi turam di wuyoo ci euh, Serigne Mountakha euh, Guèye doon kenn koo xam ne dénk nañ ko lépp lu jël ci wàllu communication bi fii nga xam ne moom moo ci teen bi su ko defee ay kàddu ci rek ci doxalin bi nga xam ne Serigne bi dénk na leen ko ngeen ko doxalee ci liggéey bu am solo bi nga xam ne macha allah yéen ngi koy liggéey ndax li du lu yomb loo xam ne ay junniy junniy nit ñooy ñëw di ko sàkku si yaakaar naa tey nekkul loo xam ne lu yomb la kon sëñ bi rek Touba Argentine TV ñu ngi lay wax waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu. ok yéen waa Touba sant ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare di ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal ñu jàmm te leen ko li nga xam ne moom lañ fi sàkku si ci mboolem ñëpp yàlla nañ ko sunu borom yombalal te it bépp boo xam ne def nañ ko ci yàlla na daje ngërëmal Serigne Touba ci lool yi ñi wax nag ni barab bii ñu nekk mooy barabu Soxna Jaara di Porokhane waaye fii ñuy waxee ak yéen mooy fii nga xam ne mooy teen bi teen ab teen nag boo ko déggee ku ne xam na ne dañ ca baaxoo root waaye soxna Jaara mi nga xam ne moo ci daan rootal sëriñam ba muy sëriñ Mame Mor Anta Sali ngir rek jaamo ci yàlla subhaanahu wa moo waral jëmmi doomu aadama yëpp di jóge ci gox yi sori di ñëw di ko fi sàkku si waaye tamit doomu aadama bi lépp lu fi sàkku rek sunu borom subhaanahu wa mën na ko may waaye nag ci kem rek moom nim mu ko sàkkoo waaw. ci wàllum jafe-jafe yi nga xam ne da ngeen ko fi jànkuwanteel lan ak lan la bu dee vidéo xanaa jafe-jafe yi moom ci yéen rek lay xaw mooy suñ mbokki soxna yi ñaari ñoom buñ duggee ba ci biir dañuy bëgg andi doole juróomi biteel wala ñu bëgg andi lu ko ëpp di la wax ne la sama nangam ma nekk fii te ñooñu tamit boo leen toppee wax dëgg day tardeel E, liggéey bi ndax ko andi juróomi biteel nga duyal ko juróomi biteel yi mooy juróomi nit ñoo bàyyi yooyu moom danañ ko jànkonte ak ñoom ak tayit fecc leen ma ko mu fees wala ñu naan la sun rang moom daa doxut te fekk rang yi moom mi ngi dox waaye kenn ku nekk rek la moom boppam lay gis waaye gisul liggéey bi ma waaw loolu daal moom danañ ko ji dañuy teg Euh, seen ay bidon ci euh, ba côté barrière bi ne këpp koo xam ne mën na àgg ci teen bi la ndoxu leen koy jaayaat ndax loolu wér waaw loolu moom li ma ci ñëwal sa bopp ci mooy li loolu moom li ma ciy wax moom mooy teen bi bu màggal gi amut ci ndigalul sëriñ bi am na ku mu ko jox. bu dul màggal waaw nga xam ne kooku moom loolu am liggéeyam ne moo ko féetewoo dañ koy tëj. li fekk ganuk sëriñ bi ñëw foofu wala ko fi sëriñ bi yebalut moom du ñëw ubbiir ko moo ko ñëw ubbiir ko boppam waaye daal di koy jox mu siyaare sa mu tëjaat ko kon képp koo xam ne di nga di nga ndox ah, di ko jaay fii ci ah, bunt bi moom ndoxam ah, dëgg la am nga ndoxam poroxaan waaye nag amoo ndoxam teen bi am nga ndoxam poroxaan nag moom ndax koo xam ne diirub armi dañ koy tëj mooy dox ci ay responsabilité du ah, ah, dox poroxaan lay dox. poroxaan li koy dox daal li koy doxal daal mooy ndax at mu maam jamono ju ne ay nit dañuy jógee ci gox yi sori di fi ñëw di fi sàkku si ak di ñaan ci barab bu ne bukkee bëgg a àggaale ci bara ci teen bi. waaye loolu li fekk amoo ci ndigalul kilifa ga doo fi mën a yegsi. kam ko jox mooy ñëw ubbi ubbi ko comme nii xomb bi daal lay rootal daal di dem. Mhm. kon nag képp koo xam ne mën na laa wax ni la roon naa fi am ndox mën na ko jaay juróomi fan ah sun bo sun borom daal mooy seere waaye li ma mën a xam daal mooy ñun diirub altine diirub altine bañ fi nekkee ak léegi amul benn paan boo xam ne génnagun na génnagun na euh, kii bi dugg fenn loolu daal moom ko jaay tamit moom buñ la waxee ne ndoxam Porokhane dëgg la jaay na la ndoxam Porokhane waaye na jaay ñu la ndoxam teel moom lay arrêté après màggal waaw liggéey bi nag moom amut ab ab ñu ngi ko après ci bu nit ñi bu nit ñi demee li fekk nit ñaa ngi fi waaw li fekk li fekk nit ñaa li fekk nit ñi ngi fi ñun ñoo ngi fi amuñu samedi amuñu dimanche amuñu altine ñun ñi ñëpp ñun ñi ñëpp ba ñu ñëw kenn ku nekk mënut a wax sa waa kër ko bis sangam laa ñibbisi waaw ndax xamul xamul xamuñu fu liggéey bi waaye ci nit ñi daal lañ baase wu moom waaw fuñ fuñ fuñ demee rek ban xam ne léegi maam nit ñi dem nañ ñun ñu daal di jébbalewaat liggéey bi ki nga xam ne moom la sëriñ bi dénk teen bi ñun jëlaat suñu liggéey jébbalewaat ko muy addi yëpp jëlaat ko moom yëpp joxaat ko ki nga xam ne moom moo ñu jëwri ne mu delluwaat ko suñu bés proxaal mi nga xam ne moom la suñ bi teg ci dëkk bi moom ñoom ñu seet ñoom ñu koy def waaw loolu la mooy doxal liggéey bi jërëjëf Serigne Mountakha Guèye ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal loolu nga wax am na solo message la boo xam ne ñi nga xam ne ñi ngi ñëw proxaan war nañ bàyyi xel ci lu ñu mel kon ñi nga xam ne dañuy sàkku si ndox ci teen bi li gën daal te gën a wóor te gën a leer mooy que nañu topp rang bi wala ñu def ay pexe ba bidon ba ñu yor suñ ci bëggee lu wér na jógee ci biir teen bi waaye amaa nag ñi nga xam ne dañuy yor seen ay bidon leeral na liggéey bi ni nga xam ne bu dul màggal noonu lay doxee te loolu yaakaar naa ne kon yombul bariwul ñoo xam ne ñoom ñoo koy am du ñëpp ñoo koy am kon jàpp naa ne daal li wér wóor mooy li tubaa Argentine TV jëlee ci ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Gueye mii nga xam ne mooy communication bi fii ci bara ci ci ci ci teen bi kon moom ni mu ko leeralee am na solo kon sëñ ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon mbokk yi lii lañ leen jëlalee woon fii ci teen bi si présentation bi ci kaddu gi seen mbokk Arouna si ngeen ci àndal Abdou Ndiaye moo nu féetal ci wàllum caméra bi sant Serigne Mountakha Gueye ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne yëpp ñoo ko leen di jàppale ci liggéey bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu